tête de poule lay doon léegi. waaw ah, tête de poule lay doon. lan ma génne par par par benn benn. ma def fii ah. déedéet madame la déedéet. borom football jël borom sport mooy borom sport. tête de poule A. Patience football club. waaw Patience football club. kan mooy bind. Patience football club. poule A. beneen la ngi nii. poule B académie football Fogny. académie football fooñi. mooy beneen bi. ñaata ñaar kii rek lay doon. ñaari poule la wala la waaw ñaari foot Kajoor football A. Kajoor football club. mooy naat day dem poule A moom. KFC. poule B. poule B excellence foot. excellence foot poule B. poule A. poule A Kuli FC. FC Kuli FC. troisième équipe poule B. poule B jet foot. poule B jet foot. poule A. poule A Espoir FC. Espoir FC pour A. poule B. poule B Marafoot. Marafoot poule B. A. poule A Talent Foot Center. TFC poule B poule A. poule B. Akim Foot. Akim Foot. léegi mot Le euh, tournoi de l'amitié ça concerne les u donc euh, dafa nekk benn frange boo nga xam ni amatuñ accès ci école de foot Bon puis, noppi aussi amaguñ âge pour atteindre donc le niveau senior. ñooñu le ñuy donc dajale donc dans les différentes structures sportives organiser leen tournoi mu nekk nag benn benn palier boo nga xam ni dafay régler benn problème donc loolu moom moo tax vraiment ñu ñëw tey euh, honoré ko monsieur le maire ci li mu defal le monde sportif de Tivaouane donc loolu mooy euh, vraiment donc kàddu yi asandaxa ba salaamaaleykum monsieur le maire bon devons comme nous euh, constaté comme que U20 un problème de la compétition. Mm-hmm. parce que u 2 mars 3 mars. partenaires sont en Angleterre Dakar. Mm-hmm. après nous avons nous pièces, pourquoi pas comme parce que bonne pelouse. Mm-hmm. donc pour ce faire il faut falloir ko am ñu ñu ñu saa ñu honoré maire bi ndax police bu ñu defal lu ñu bëgg nag benn côté de euh, ça l'engagement il est gratuit amul benn équipe bu joxe 1000 francs wala 2000 dañ ko def pour mën bosser la compétition parce que les petits en U20 quand ça joue pas ça progresse pas mm. ñëw di ko def pour accompagner ñu ci terrain bi ñu permettre xale yi parce que tous les matchs seront filmés mm-hmm. boo xam ñu permettre boy bu ci am sens agent gis sa fi wala keneen gis ñu recruter la mm. loolu sera une ça la sens des jeunes de Tivaouane mm. ñu honor la ci nag def la ci parrain d'honneur bëggoon nañu première journée bi boo amee jot nga ñëw ibil ñu ko wala soit Gora Seck ñëw fa représenté la fa la finale aussi tamit bu la yàlla mayee jot nga kii mais lu ñu bëgg rek nga maye xale yi benn plateau boo xamante dinañ permettre ñu exprimer parce que filmer des matchs sur des terrains sablonneux ça n'arrange pas le football lu ñu bëgg mooy football bi upgrade loolu rek la bëgg ñu ni xaram yi delloo ci njukkal bon en tout cas merci bon lii aussi bon comme ni wax rek lépp loo xam ne initiative la boo xam ne day yokk sport en avant rek mooy man ji suis disponible mm. donc man ji aw ma problème de truc donc vraiment man objectif majeur au moins sport bi na niveau boo ça veut dire que faut di par niveau man nag tout le temps mais demander résultat man du comme ça dans le néant je n'aime pas damay bëgg nit buy demee progresser mais xam ne progression. comme ni may toujours di fi mun équipe muy seetaan. noonu équipe man équipe mais loolu aussi day fekk d' mu wér mu wóor ma ne que kat ñi ma koy defal am nañu mun nañ dem. mën naa leen boole aussi ak ñoo xam ne bu ñu am tournoi man maa leen di jënd seen billet ñu dem jouer ci. kon loolu mun naa ko def fii. donc léegi li may def yëpp du lu may jàng lu may tari la. loo xam ne def naa ko ba sonn donc donc man lii damay leen di pousser. pour ngeen xam qui est prêt à vous aider pour faire ne qu'il faut. Mm. celui qui travaille il gagne quelque chose celui qui ne travaille pas mun maa xarit. Mm. man sama objectif loolu la. Mm. wax yu am man dama ko mënul problème problème problème tant que yéen ngi joué di respecter li bëgg ci bi problème semaine prochaine nous naa ne

loolu leen bëgg boo leen gisee góor a disponible. moi je disponible. en tout cas maa leen di remercier temps bi dafa xat mais du tee nag au moins wax leen ne leen daal l'Estar aussi comme ni woon c'est wax naa ko góor a à chaque fois que leen rek mooy mooy jour yi nga xam ne que Damel moo ci war di entraîner wax naa ko góor aussi nee naa ko chaque semaine je ferai en sorte que Damel dem ci stade bi entraîner même bu dee deux jours dans la semaine avant les matchs y a pas moins que ñoom aussi ñu. avec le terrain avec ak seen stade parce que fii la ñuy puis des aussi aussi ngi mais vous êtes des supporters du Damels ne soyez pas des gens qui sont dans les écoles de football Damels de football vous êtes des i il faut arrêter ça même pour foo Damels de football que personne ne programme un match dans la ville ne programmez pas de match pas benn match tant que Damels joue, ngi joué amul programmation de match ñëpp dañ le stade un jëm C'est comme ça loolu est tax équipe bi avancé te équipe bi lu mu en tout cas merci